waaw xam nga jamono ji lu ñëw rek ñu ne rab waaye lu nekk rek danga koy xam avant ngay wax rab la walla nàngam nàngam euh, bari na jigéen yoo xam ne ñi leen yi leen téye xam nga lan la cat kese moo leen téye cat dong moo leen téye paa rab am na nag ñoo xam ne moom rab moo leen téye ba duñ am jëkkër hmm? am na ñoo xam ne rab moo leen téye dañuy am jëkkër biñ demee ba ci biir sëy bi dañuy divorce ndax li ñu àndal moo bëggul moo moo leen bëggul a bokkaat mm. ndax démb rek ci guddi ay une heure maa ngi wax ak benn jigéen ci lu mel noonu mm. mu ne moom euh, góor gu baax gu ne day jokkoo ak moom mm. waaye bu demee ba jël décision pour farata dootul gis góor googu ma ko li nga àndal la mooy am na xam nga am na ñoo xam ne seen rab bi ay kilifa leen ñoom. dañ lay ñoom ñoo lay nopp ñoom kese mm-hmm. waaw bu ñu la xasee ba ba nopp mm-hmm. keneen bokkatul te am na jigéen ñoo xam ne soxna si tam euh, rab yooyu day dem ba dugg leen ba nga xam ne góor gu leen takk dangay ngay mm-hmm. góor gu leen takk da ngay génn àdduna sikk amu ci tam dégg nga bari na di nga léeg-léeg di gis jigéen joo xam ne tamit maanaam euh, rab yooyu mooy dama dem ba mu jigi moo koy sonal ba nga xam ne boo koy xool nii rek ci xëykala maanaam ci bindu doomu aadama da ngay xam ni kii am na lu nekk ci moom waaw yooyu yëpp doomu aadama lu euh, nit da ko war a xam waaye lu ñëw rek nga ne yow rab jàpp moo nangam moo tax mënoo am wala mënoo am jëkkër déedéet du loolu lu nekk rek léegi dafa am fooy jaar pour yàlla xamal la ko léegi nag bu la ko yàlla xamalee bu fekkee ne jëkkër nga bëgg moom lu yomb la mm. waaw pour am jëkkër lu yomb la li ñuy def ci waaqee lañ koy liggéey ak ci xobi guro takk nga toog 14 jours yoo xam ne doo wax ak sa Ablaye Ndiaye du la seet si doo wax ak moom téléphone doo ko seeti doo fa dem nga toog di jëfandikoo càngat yooyu dans 14 jours di nga dégg alxayri incha allah léeg nag niir woo la ne la man borom kër laa bëgg nga wax ko sart yooyu mu ne ma mënu ko. mënul toog benn jour boo xam te déggantewul ak ak copain am dégg nga wala copine la ñuy wax dégg nga su ko defee léegi yooyu euh, mooy sart bi 14 jours xam nga kiiwul yàggul am na si ñoo xam ne dañ naan la mën nañ ko waaye dañu dem ba ci yàgg dans 4 jours 5 jours ñu woo la téléphone ne la ah man kat laay bi woo na sama copain bi woo na ma nee na nangam ak nangam ma ne ko yàqu na 14 jours yi da ngay toog concentré wu ci. xam nga wax nga léegi xalwa ndax dafa am ay sept jours trois jours am na ba quarante jours nit ki boo ko wóoloo ba dugguloo ko xalwa am na si ñoo xamante ni bu la neexee man boo amee foo xam ne fu feex la mm-hmm. hmm? buñ duggee mm-hmm. sa kër bu la neexee nga tëj sa caabi mm-hmm. dem bàyyi ma ci biir waaye nag day fekk lépp luy siise siise yi di jëfandikoo dafay nekk <laughs> <laughs> dégg waaw jigéen ñi tamit loolu la maanaam 14 jour ñaari semaine yomb na muñ mën nga ci waxtaan ak sa copain bi sax mm-hmm. waaw ne ko lii ak lii dégg nga wala nga lay mm-hmm. su ko defee ba 14 jours yi mat incha allah moom bu la takkul yàlla dina la indil beneen góor gu baax ko mm-hmm. am teraanga boo xamante ni bu ñëwee moom dina la mën a euh, nga nekk soxnaam incha allah. ci waaw loolu rab da koy def. Ah. kooku rab da koy def tamit dégg nga di di gis jigéen boo xam ne day sëy di am doom jékki-jékki taxaw amatul doom di nga gis koo xam ne day sëy nekk ci biir sëy bi dem ba si euh, euh, te du am doom yu nekk day am lu ci nekk rek maanaam lu ñuy faj la soxna si waaw lu ñuy faj la man mën naa wax ne sax loolu ci laa gën a spécial ci jigéen boo xam ne dangaa taxaw euh, amoo bëgg doom amuloo ko nga nekk ci biir sëy lu yomb la ginaaru olof yi waxuma ginaar yi de xam nga fi mu toll nii ñuy lekkatuñ ginaar waaw ginaar yoo xam ne yow 15 jours mu toll ni nu mu la neexee pas ginaar yooyu da ngay jël ginaaru olof ak sow piir lañ cay liggéey man duma ko wax secret la ndax xam-xam kenn du toog ci internet bi di ko wax waaw ku ko soxla après bu jëlee suñu adresse ñun dinañ ci jëflante ak moom dégg su ko defee léegi bu ko jëfandikoo incha allah du yàgg dara. dina dina porter ëmbam incha allah. Mm. mais ñu laaj jinne mm. ak rab ak seytaane lan mooy mm. waaw jinne ak rab benn la rek ndax léeg-léeg nga dégg ñu ne kii daa am ay jinne yu koy kii walla kii daa am ay rab benn la. benn la dégg amul benn benn différence dégg nga te jinne dañoo mën a gudd fan soxna si dañoo gis koo xam ne mën naa dund juróomi téeméeri at cinq cent dégg nga cinq cent temps dafa laa moom ngeen koy wax juróomi téeméeri te ñun pour nga gis si ku dund téeméeri at rarement gis nga dafa amoon benn catégorie bi ñu daan wax Mouhamadou Dizane ak Mouhamadul Xaxawi Mouhamadou Dizane catégorie mooy jinne yi yi nga xam ne ñoom ay jullit leen Muhammadul Qaxawi moom ay eh, katoo gi de moom ay yéeféer leen dégg nga mooy jinne yi nga xam ne ñoom dañoo tuub ci jamono yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu àndee Abdullah ibnu Mas'ud dem ci xuntuma léegi rëddal Abdullah ibnu Mas'ud ne ko rëdd bii bu ko jéggi boo ko jéggee maa ngi yow yowmal xiyaam la ñuy giseeti dégg nga yonent bàyyi ko foofu sallallahu alayhi dem ci xuntuma di waxtaane jinne yi moo waral sababu nusoolu qul uhiya ilayya annahu sama nafarun min al jinni fa qaalu inna samina qur'anan ajaban yahdi la rushdi fa amana bi wala nushrika bi rabbina ahada li nga jàngaat feneen mu ne la way sarafna ilayka nafaran min al jinni yastamiuna al quran falama adaru qaalu ansitu falama qudiya wallaw ila qawmi munzirina qaalu yaa xaw qawmanaa inna samina kitaabun unzila min baadi muusa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq wa ila tariqi mustaqim yaa qawmana ajibu daa yàlla xam naa euh, temps bi moo ko may waaye konoon dañuy détaillé yépp dégg ñoom biñ déggee loolu rek automatiquement dañoo bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw jébbalu ci yonent bi sallallahu alayhi mais léegi nag katoo gili Muhammadul euh, Xaxawi bi ñoom ñoom dañoo continuer ñoom nekk ci seen i kufru nekk ci euh, ñooyu nag ñooy dugg ñuy dugg yenn ci xale jigéen yi di leen di yàqal ñenn ñi dañu dem ba dootuñ am kii dootuñ am boroom kër ñenn ñi far bu baax bu ne di dineen ko am waaye bu waxee bu jëlee desiyon pour euh, alxayri rek dootu dootuñ ko dégg dégg nga yooyu yëpp dégg nga moom moo ci am ah, xam naa bu ñu ko taayu mayoon ku ci nekk nag ma détail la ñoom jinne may moo nag ñoom jinne nàngama nàngam moo tax temps bi moo ci xajul mhm.

dégg nga ñenn ñi nag am na si ñoo xam ne ay problème lañ fi am ci seeni famille ba mu jigi ñoom ñu gàddaay dëkk bi dem loolu doo leen déggati ñeen ñi nag dañuy am jàmm waaye euh, dañuy dem ba foofu bëgg a ñëw duñ mën a ñëw waaye lu ci nekk rek maanaam lu ñuy ñaanlu la ak tamit ñu gën a fonk sarax soxna si xamoo ne sarax rek faj na ajo sarax kese rek euh, man li ma ko daan defee ci yaasin la woon ba léegi tax ci laa koy def waaye nekkul n'importe kii laa koy defal dégg nga su ko defee boo ko boo ko liggéeyee ba noppi dafa am noo koy def ak gàtt bi euh, nga am ay ñaan yàlla yoo ko yónnee moom tam xam nga jamono ji foo euh, réew moo bëgg a dem am na GP yu taxaw pour boo boo leen fayee rek ñoom ñu yóbbul la ko waaw loolu moom du problème li ci gën a gaaw tamit xalwa tamit bokkoon na ci liggéey wax naa la ko léegi. comme yu mel nii moom boo bëggee mu gën a efficace gën a gaaw rek xalwa da ngay fexe ñu defal la ci xalwa te ñaan yàlla soxna si nekk lu dul rek nga fexe ki lay ñaanal xolam set loolu képp mooy ñaan waa te sarax rek faj na aajo ñenn ñi nag boo leen ko waxee dañuy yaakaar ne da nga bu ñu la ko yónnee da nga koy lekk te nit balaa ngay dugg xalwa war nga am loo saraxe boo génnee tamit am na loo war a def ah te loolu ñoom boo leen ko waree dañ naa la yow da nga bëgg lekk seen xaalis ak yu may fekk yow sa bopp ngay defaan ni dugg na xalwa euh, faatu kanaa xam accident bi bi nekk ci kurus mm-hmm. ah bi bi xew ci kurus yi mm-hmm. mu ëpp fu accident yi ci mbedd bi nii ci tali mm-hmm. ah? am na koo xam ne tey turi jinne turi jinne lay liggéey jinne ji fekk fa fàdd ko mu daanu mu jaaree ci euh, ñibbi laaxira ah? am na koo xam ne day liggéey turi jinne jinne ji ñëw yàq ay mbiram dootul baaxle ñaata nit ñoo ñëw pour faj doomu aadama jékki-jékki ba ci yàgg rek seeni mbir euh, dem ah ñu tëj seeni place dem ah, ñaata nit ngay gis tamit ay boromi kër ah ñu jékki-jékki rek maanaam génn seen kër yi dem am na ñoo xam dañ leen di naawtal mais am na ñoo xamante ni ay rab moo leen koy def dégg nga lépp nekkul ay naawtal yu ci ëpp rab la dégg nga su ko defee yooyu tamit dangay fexe pour aar sa bopp ndax am na doomu aadama yoo xam ne seeni mbir duñ la ko wax dañ koy nëbb su ko defee yow ci sa baatin ci nga koy xamee def naa ko ay nit ñu bari am na ñoo xam ne dañuy ñëw wax la loo xam ne loolu nekkul ci ñoom yow yaay dem di liggéey liggéey ba ci biir yàlla wan la ci seeni mbir loo xam ne ñoo waxuñu la koon ñu toog ñu ñu doog di la ko wax loolu day am te euh, léegi loolu nag bu fekkee nag xamuloo ko xamuloo yoon bi ngay jaar te mooy waral nga sànku rek ah, ñaata sëriñ nga fi dégg ñu jékki-jékki rek nga bu kurus dem ah ñu dugg xalwa jékki-jékki nga dégg ñu ne kii ci xalwa bi la dee ñaata nit la turu yàlla dañ koy tarbiya ba xam ko ba rawaan bi nangul la dégg nga nga xam ne léegi yow ci sa ci sa euh, kii rek lay dox maanaam loo waxul waxu ko waaw sa disposition rek ci lay dox loo bëgg a def rek moom mën na la ko defal léegi tey fi mu toll nii boo bëggoon a faat doomu aadama nga liggéey ko wax ko na ko bëggee faat da koy yónni da jàng la jàng rek rawaan bi yegg si nga yónni ko ci diw ne ko demal ma ci diw nga defal ma ko nàngam mu ñëw rek fàddu ko mhm. lépp xam dañ koy jàng ko turu yàlla dañ ko xoolal turu yàlla. bu nekk dafa am talsam istixraaj bi dangay fexe xam istixraaj maanaam fi mu génnee lii aslu bi maanaam lii moo fi nekk lii lañ ci yokk lii bokkul ci lii mooy turi jinne yi turu yàlla bi lii la talsam bi lii la lii mooy turi jinne bi lu nekk rek dañ ko war a xam waaw comme ni ngay eh, ni nga ŋàbboo say saak dem ci école bi jël sa kaye sa professeur di wax ngay bind di jàng di mokkal mu lay bindal ay leçon ngay mokkal di tari di réciter yooyu mu lay dicter ngay bind mm-hmm. euh, turu yàlla tamit noonu lañ ko war a jàngee. Mm-hmm. mais li mm-hmm. waaw wàllu ngóora xam naa sa émission moo gàtt waaye koro di rek ci wax lu bare bare bare ndax jamono ji ñaari appel yoo am rek jàppal ne wala ñett ñaari moom la ba Europe Amérique Allemagne yëpp dégg nga day am nañ fa ay GP yoo xam ne dafay dem te ci wàllu ngoro googu daanaka moo ci ëpp liñ fay liñ fay yónnee ata senegal gii sax léeg nga gis tonton boo xam ne maanaam mën na la mën na la jur waaye day am kers bu jàkkaarloo yow day am kers pour wax la moom li nekk ci mbiram ma ne ko non bul am kers waxal rek maanaam feebar dañ koy wax jàngoro boo ko waxul du saafarawu ah médecin bi tey boo demee ci moom di ko nëbbu li nekk ci yow du la faj léegi danga naan ko lii moo nekk ci man euh, su ko defee moom tamit li ko yàlla xamal mu jël si moom tamit dimbali la ci ndax doomu aadama bu nekk rek maanaam euh, yàlla bul wax ni kii xale la wala kii mag la am na koo xam ne am na soixante-dix ans am xale boo xam ne moom trente la am li xale trente bi xam magu soixante-dix ans bi xamu ko xam-xam nekkul ci ay âge yàlla bu doon bu doon loolu yonent bi sallallahu alayhi ay baayam ci ay baayam la ko yàlla yónni woon la tombe loon Abu Jahal lan la Abu Lahab baayam bu ndaw la Abu Sufyaan ah, ibtidaay daxwa bi gëmu la façon complot bu nekk pour xeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour faagagal ko def na ko mais ay pexe moo sottiwul te bàyyam la ah ak ñeneen ak ñeneen xoolal suñu kilifa diine yi ah ah ñoo xamante ni tey jarul ñuy tudd duñ tudd ket man sama émission du ma tudd kenn wa dégg nga su ko defee loolu tamit nekkul warul eh, jar nga nekk fi kii xale la wala ki déedéet feebar boo gis soxna si mm-hmm. li kuli daa in ad dawaa saaw kii feebar bu nekk am na li koy saafara ndax sa boo demee ci alxuraan def ne la yaa ayyuha naas qad jaakuma mawizatu min rabbikum wa li lima fi sudur wa hudan wa rahmatu lil muminina ñun li ñuy faje ci góor gu néew kartan ci alxuraan kese la dégg nga alxuraan la gis nga gis nga néew kartan dafa am bu ñuy wax impuissance dégg nga dégg nga sexuel ak fatiguement sexuel impuissance mooy góor goo xam ne daa góore woon dem ba ci yàgg góoreetul mu sentir na moom nekkatul góor xam nga kooku mën na am doom dangay gis koo xam ne sax day am ñaari soxna walla benn soxna daan am doom jékki-jékki ne la man sama soxna mënatuma ci moom dara ndax sentir naa la ma mënoon ci moom mënatuma ko ci moom impuissance a ngi noonu ah mooy ku amoon kàttan ba ci yàgg amatul kàttan ni sëy hmm? Fatima sexuel mooy koo xam ne li muy sëy day day bari subaa mu ànd ak nabu bu ginnaaw subaa mu ànd ak Xadi Njaay ah, tey mu ànd ak uh, kii faatu yooyu day dema dem ba mujj gi uh, maanaam uh, awrab bi day dem ba mujj gi danaan las te bul fàtte ne sexe bi benn benn sëdit la buy taxaw léeg mu mu mu mu mu mu ras wàcc léeg mu taxaw dégg nga léegi su fekkee ne LS tey boo ko jëloon di taawi rek di taawi di taawi bu yàggee nu muy def ah, bu yàggee day taawee rek di nga bëgg di nga bëgg mu dajaloo dootul mënatee dajaloo doomu aadama tamit loolu noonu la mel. waaw nit ki nga xam ne moom fatiguement sexuel la am dañ koy wax mu wax mu mu def mu repos repos sexuel su ko defee te di naan ndox mu bari day toog noppaleku bu waroon a ànd ak nabu mu toog noppaleku du sëyi te di naan ndox bu bari mu def ko 18 jours walla mu ëpp ko dégg day demaat ba mu jigi affaire bi day fonctionné waat mel. lu raw nam meloon ci jamono bi mu doon fonctionné tey sama loxo bi bu ma ko téewoon di dóor rek di dóor rek bu yàggee dinaa ko dóor foo xam ne waruma ko dóor mëru làmb ji entraîné ba toll ni ko neex jàpp ne euh, ki mu gis rek da ko war a dóor mu daanu ah muy def noonu rek di dóor nit ñi ñuy daan di dóor nit ñi mu bis dina ñëw mu dóor koo xam ne moom ci boppam mooy daanu dégg nga affaire bi tamit noonu la mel. waaw fatiguement sexuel repos sexuel impuissance sexuelle mooy koo xam ne amoon na kàttan pour sëy léegi sentir na ne moom amatul kàttan boobu pour sëy su ko defee kooku day faju traitement bi mooy day faju waaw ñun nag suñuy garab duñu wax kenn ne ko nii la ak nii waaw am na am na sunguf mais dañ ko boole alxuraan ah, dañ ko boole alxuraan moom boo ko ñemee man maa ngi ko tuddee xum lil firaas mooy jugal ci lal bi amatul nelaw waaw ndax ah ndax nit ki nga xam ne euh, xam nga euh, soxna si am na koo xam ne ci benn guddi benn yoon rek la mën a ànd ak soxnaam koo xam ne benn yoon boobu sax pour mu ànd ko soxnaam problème la lu nekk da koy faju hmm? garab yooyu ne boo ko jëlee mën nga ànd ak sa soxna juróom sept fois ci ci ci ci benn guddi walla dix fois yoo xam ne bu nekk da ngay fonctionner normal dégg nga nekkul loo xamante ni tamit maanaam da koy jël euh, dose bi ëpp ndax am na limite boo koy jël dañ lay wax ni nga koy jëlee ak heure yi nga koy jël en même temps am na sart mooy balaa ma la koy jox dama lay laaj ndax yaa ngi nekk ak sa soxna wala nekkoo dégg nga sinon boo ko jëlee te nekkook sa soxna mën na la defloo loolu naka sudul noonu mm. te loolu lañ ci bañ soxna si. Mm. waaw mm. jaaro bi nga <laughs> jaaro <laughs> bi moom bayre la. bayre la taxsin la kaaraange. ak fatxu am na nag ay eh, jaaru jigéen tam. sans départ ci rek ku ci bëgg dégg nga boo ko takkee bu fekkee móodu móodu nga fi nga nekk tubaab yi dinañ la bëgg sa patron dina la euh, bëgg dégg nga bu fekkee tamit da ko danga nekk foo xam ne da nga faa ragal ay noon walla ay xeex boo ko takkee yàlla mën na la muccal ci yooyu dégg bu fekkee nit koo xam ne amoo bayre xam nga day am ci nit ñi am na koo xam ne moom bayre dara la ci amul am koo xam ne moom bu doon tëll fii rek nga dagg émission bi topp ko yooyu yëpp day am ci nit dégg nga fa dégg ñu naan diw diw doomu diw am na lu muy diwoo dégg nga loolu moom amul sax sikk loolu yéen xam ngeen si dara dégg su ko defee yooyu bu ko takkee euh, dégg nga maanaam lu raw loolu moom mooy nekk ci moom dégg nga euh, loolu la kon loolu laa ciy wax jaaru bi nekk na jaaru boo xam ne jaaru bu am solo la ci ki nga xamante ni moom moo koy bëgg. waaw bayre léeg-léeg nit ko am na ñoo xam ne dañoo judduwaale seen bayre naturellement même bu ñu demul ci sëriñ mu sang leen bayre ñoom am nañ bayre am na koo xam ne moom tànk demul ci sëriñ mu sangu ko du am bayre am koo xam ne moom moom dakaa amantewul sax moom dara dara dara dara amantewu ko bayre la amul moom ci boppam waaw amu ko. waaw kooku na na wut bayra ndax bayra nag ci la bokk waaw am na am na bayra bu ñu doon tuddee bayre tubaab taayale mooy bi ma bi ma ko defee sa émission boobu gars yi ñu ngi ma doon woo bayre tubaab bi kooku dañ koy liggéey nga fexe boole ko ak kawaru tubaab nga sangoo ko kooku booy bayre tubaab waaw buñ ci jëflantee dinaa la ko wax mbind mi nag dafa bari. d'accord kanaa xamoo soxna si. tàngal yi mën nañ la ci nopp tàngal damay bañ a tudd benn tàngal ah, pour nit ñi déglu tàngal bii ngay màcc nii mm-hmm. mën nañ la ci nopp mm-hmm. waaw mën nañ la ci nopp am na koo xam ne tey bu demee ci eh, xew nga jox ko tàngal yooyu du ko lekk da koy jël wormaal la def ko ci poosam mm-hmm. ba ñibbi jox ko ay xale dégg ndax nopp bu garaaw moo ci nekk nimin namu nansir moom lañ ciy def nimin namu nansir moom ngay def ci tàngal bi kastewaat ko jox ko ki nga bëgg mu mu topp la nga jox ko mu lekk ko dootul am sago ci yow bu tànk gisul la day am problème waaw tàngal yi rek mën nañ ci noob nit ak am na lu ñuy liggéey tamit ci soble soble bu ñorul nga am noo def def ko ci soble bi dégg nga am foo ko suul kooku tamit maanaam du am sago ci ci ci ci yow dégg nga waaw yooyu yëpp nopp dafa bari ay façon soxna si mënoon naa ci def euh, kii mënoon naa ci def émission carrément waaw toujours loo xamante ni maanaam te du jeex waaw moo tax moo ko mayewul waaw. Hmm.

léeg ma wax yu xoromu waaye dina reetaan ci suuf sëgg dégg nga waaw su ko defee daal man li may wax yow daanaka wax nga lépp te lépp wax nañ ko tamit waaw samay kalimaat daal yu mujj kàddu yu mujj mooy kalimaatu sukkur sant la gërëm la di sant technicien bi tamit di sant waa kër gi di leen ñaanal yàlla sutura bu sax dàq ak tawfiix ak taysiir Euh, di ñaax sama bopp di ñaax doomu aadama yi tamit ñu gën a jàppante gën a nekk benn gën a solidarité dégg nga bu ñu ko defee rek euh, kenn du mën ci ñun dara jullit jullit mooy mbokkam yéeféer yéeféer bi mooy mbokkam naafeq bi naafeq mooy mbokkam dégg nga su ko defee yooyu ku ci nekk rek maanaam am nga koo xam ne mooy sa mbokk ñun ay jullit leen nañu def yëfi jullit nañ koy wax nañ jàppante nekk benn di xàccandoo di dóorandoo su ko defee suñ noonu du ñu ñeme mm-hmm. kon man lii laa lii mooy li nga xam ne mm-hmm. man moom laa si tàggoo tàggatoo sax soxna si mm-hmm. di leen gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah